jërëjëf bokk internet di ñuy topp ci Pikine Info ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar tey ñu ñëw seet si ko xam te ne tey kenn doot ko présenté mu nekk le coach ci combat am te ne combat am solo la woon doon def sortie am lu ñu ci koy seet si xool lan mooy réaction am ci boobu bi nga am nañ ko mu doon coach boo xam bi nga xam te moom lay dégager professionnalisme ak cadre bi nga xam te moom lay yëkkati ñu maa ngi lay fay Thiandoum di nuyu mbokk amateur yeb ah, di contane ci eh, ngeen ñew set suñu eh, di partage ak yeen li nga xamne tay moy lamb eh, làmb waaw comme ni nga ko waxe rek def nañ sorti démb yalla antuwul donc voilà ñu war ci wax suñu xalaat. Mhm. alors bala may ñëw fofu ñu gis ni nga nga nekk ci écrit bo xamantene tay ñu bëri tay dañ koy bayyi xel. Euh, à travers personnalisme bi ngeen di dégager mu ne écrit bo xamantene c'est bien outil ak discipline bi nga xamantene mi ngi rëññee ci écrit bi lan mo leen may lool waaw lépp organisation la rek lépp organisation la balaa may wax damay profité euh, féliciter euh, vraiment tout le membre de l'encadrement de euh, Jambar Wrestling Academy muy coach yi fa nekk président bi Père Ba ñu ngi koy féliciter di féliciter coach yëpp coono yi dajeeg yëpp féliciter encore mbër mi moom mi nga xam ne tey nangoo na joxe boppam liggéey la ca war wan nañu bëgg na combat bi. lepp lépp li nga xam ne war nako def nako ci vraiment ñukoy defal mention spéciale euh, vraiment di kontaan trop trop trop trop ci ni nga ne tay. Euh, Mom la ñepp gisé jambar. parce que tay jambar lepp lo gis rek ci aduna organisation la jambar façon buñ ko organiser te xamné sport sport euh, discipline rek moko ko yenu sino dara ko discipline moo ko mën a yenu ñu instauré li nga xam ne mooy discipline si suñu bopp d'abord euh, parce que nit ki moom booy woote dara da nga ciy njëkk euh, wane yar wane teggin wane responsabilité ba pare nangoo liggéey parce que làmb amul naxaate sport individuel la da ngay liggéey liggéey ba ca war ñu teg programme bi nga xam ne tey moo adéquat at ni nga xam ne tey moom la ñu bëgg si suñu écurie mbër yëpp nangu ko ñu ànd ak ñoom di liggéey vraiment di félicité mbër yëpp ñi nga xam ne tamit bëri nañ démb muy Gurel Jum de vraiment Petit Lo ah Caatu euh, euh, Piol at euh, ki nga xam ne mooy Anaconda di leen félicité encore une fois vraiment loolu la rek parce que amul leneen amul secret organisation la at discipline at travail at liggéey loolu rek la ñu boole loolu mooy jàmbaar. mais ñu gis tamit coach yi am bëri na ay coach yu fa nekk mais mu am benn complicité ak benn solidarité bu am seen biir parce que d'habitude dañuy coach yi fu ñu bëri rek kenn dina bëgg a distingue ci loobu imposé boppam mais loolu amul jàmbaar. non loolu amu fi parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te dañoo bëggante suñu biir ba pare joxante cër kenn du def du yëkkati dara te keneen ki yëgul ah, am instauré benn communication suñu biir am benn panel boo xam ne ah, avant ñu ñëw entraînement ci la ñuy waxtaan bu jógee entraînement tamit ci la ñuy évaluer du waxtaan di tegandoo lépp di yëkkateendoo di dóorandoo parce que tey xam ne écurie yu bëri ay euh, xëccoo par parloo moo koy tas ñun ñu teel a xam loolu comprendre loolu dindi loolu suñu biir euh, joxante cër respectante ku nekk li nga doon ñu nangul la ko et jox la cër bi ba mu mat sëkk. donc loolu nag tey euh, vraiment maa ngi ciy félicité coach coach Souka coach Lato Yaaram père Ibou juuf ak père Ndiouga parce que ñoom ñaar pe Ibou Diouf ak Ndiouga Dia ñooy suñuy mag fii ñooy suñuy tiitër fii ñooy suñuy référence tey si ñoom la ñuy xool ba lépp lu ñuy def dinañ toog ak ñoom waxtaane ko bañ nañu yoon bii moo baax ñu jël yoon boobu euh, euh, doxal ko tey je pense que lépp rek organisation la ak discipline waaw loolu la rek. alors ngeen jóge ci combat moom tamit mun naan ñaari acte la. muy poisson ak ki nga xamante ne mooy Siteu amoon na acte am lu ci xew ngeen waajal ko préparer ko ba cappaandaw am lu ci xew am démb li nga xamante ne mooy acte deux bi tey boo cumulé ñaar yëpp mbër mi yow mi doon nekk moom yan coono la ci daj. waaw loolu moom yow ku nekkul ak mbër mi sax xam nañ ni ñaari mbër yi dee nañu combat boo xam dañ ko taxawal avant Covid ñu ñëw ba combat bi des une semaine Covid bi ñëw déjà Covid bi ñëpp xam nañ ñaata temps la durée ñu toogaat vraiment dépenser lu ñu yor sonn ci. yàgg na yàlla def ñu taxawalaat combat bi bañ ñëwee gis nañ ni kombaa bi yàqoo ah, mu neexul kenn neexul benn sénégalais neexul benn amateur tey ñu taxawalaat combat bi tey ñu waajalaat ko ñëw ba fii mu demee nii donc mi ngi noonu dañ koy nangu xam ne sportivement tey euh, làmb ñett la VDN victoire défaite nul loolu ñun dañ koy gëm te dañ koy yóbbuwaale. bu buñ jëmee ci combat nag suñu adversaire duñ la may jàmm lépp lu ñu xalaat ni mun nañ la ko wax mu déstabiliser la lépp lu ñu xalaat ni mun nañ la ko wax mu yàq sa combat bu ñu ñëwee juum la daan la dañ la ko wax mais bu jeexee nag sportivement ah, ah, duñu duñu nekk mauvais perdant dañuy accepter ba pare féliciter suñu adversaire sur plan de la préparation est-ce de préparation am na différence. waaw type de préparation yëpp am différence. parce que boo xoolee euh, contexte yi bokkul ci contexte bu njëkk bi ñu nekkoon ak ci contexte bu mujj bi bokkul même ba ci contexte bi bokkul mais lépp rek yàlla def na ñu ñu ñu ñu waajal ci waajal waajal bu minutieux bu bu xam ne tey dañ toog waxtaane ko waxtaan ak mbër yi teg programme mbër yi respecté ko ñu ànd ci liggéey ak ñoom wax dëgg yàlla tey ku ñëw stade démb xam nga ni papa indi na forme ku ñëw stade démb xam nga ni papa mi entraîné na ba dee ku ñëw stade démb xam nga ni bëggoon na combat bi du dëgg tey nag l'homme propose Dieu dispose donc loolu nag dañ koy nangu. dañ gis ni deuxième combat bi ci diir bi ñu ko jàpp dafa dafa gàtt ñu bëri loolu lañ gis. waaw looloo tax mu baax parce que déjà ñaari mbër yi yàgg nañ préparer kombaa bi. te euh, préparé waat ko combat dër bu yàgg amul sens parce que mbëri déjà pare woon nañu ba pare dañ doon régl defaat ay réglage rek donc looloo tax tey bañ ko jàppaatee date bu gàtt ba ñaari mbëri ñëwee ñoom ñëpp gis nañ ni ñaari mbëri vraiment indi nañ forme préparé nañ kon tëdduñu woon di nelaw. kon coach manière bi mu abordé combat parce que d'habitude dañu poids bu am ten a fete adversaire battre ko mais dem papa bu am ten tey ni mu bëree bëri na interrogation. wa bëri eh, interrogation tay je pense que ni euh, euh, ñu bàyyi mbeur mi tay warna def ben point de presse defe naa ni côté yooyu dina ci revenir donc voilà xamna ni lolu mom dañ koy euh voilà nday mbill gi bu ñewé mu léral ci façon bu mu bëree léral li waral mu bëree nonu léral léral léral ah, ñun nak liñ ci mën moy analyser li nga xamné tay moy yoon parce que tay mënuñu rek lu dul féliciter Siteu encourager papa mënuñu lu weesu loolu tey ñu wax ci préparation bi wax nu ñu préparé woo tey euh, ni papa abordé combat bi tey xëy na tey moom bu ngeen moom moom moo ci bëgg a wax dañ koy bàyyi ak loolu moom mu communiqué ci. mais souvent mbër dina bëree noo xamante ne tey conseil wuñ ko day ñëw ba li ko jox mu def ko dañ bëgg xam loolu am na ci làmb démb ji wala amu ci. waa loolu amu ci loolu yëpp amu ci parce que lépp préparation la. Euh, jour combat répétition la xëy na tey euh, dem nañ ci préparation boo fa foo xam ne am nañ ci ndog euh, ñu xool nu ñu mën a gérer combat bi ñu gérer ko noonu mais tey wax dëgg yàlla papa bëre ba pare combat bi demee nu mu demee nga ñëw taxaw fii di am ay excuse wala di am naan lii wala laa parce dañ naan mbër mu daanu am lay léegi nag li am am na papa bëre na at Siteu ci ni mu bëree ci stratégie ci expérience ci doon mag gi mu doon mag déglu Siteu xaar ko mu ñëw parce que loolu moo doon objectif bi Siteu mooy xale Siteu moo am lu mu bëgg a prouver. xaar bi ëppul. xaar bi ëppul xaar cinq minutes ëppul ëppul d'autant plus que yow ki ngay xaar mi ngi fële taxaw doon xale tey papa liñ ko doon wax rek mooy mu bañ a màmm parce que dañu seetlu ni mbaam yu bëri lu koy yàqal mooy yàqamti at màmm tey. ci côté patience boobu ñu doon xaar ci moom war nañu ko il était patient ci combat bi euh, tegoon na ay ndoxtu yoo xam ne tey euh, bu ci Siteu duggoon mënoon na am ndam déjà ni mu bëree ah donc euh, amoon na sujet bu wóor am na fu mu bëgg a fu mu bëggoon combat bi dem combat bi àggu fa du dëgg tey nag défaite bu ñëwee moom loo mën a analyser défaite la il faut l'accepter et on l'accepte nangu nañ defet bi te làmb ku juumul doo daanu juum nañu daanu nañu. fan nga jàpp ni foofu la poids juume. mooy yàgg bi mu yàgg ci tànk bi. jël bi mu jël tànk bi nelaw fa parce que papa bërëm yëpp deux temps la mos nekk. day bëre jàpp lii def lële mais bii dafa insister ci tànk bi te boo xoolee insister bi mu insister pour moom Siteu dagg na ba war a jëm suuf donc loolu rek mooy juumte ci làmb ji looloo indi defet bi donc voilà nit ki nag. Euh, comme li ma la ko waxee da ngay am sa yaakaar am sa gëm-gëm nga ñëw def li nga yaakaar def li nga gëm yàlla dogal il faut l'accepter fu mu la ne lépp loo fi wax rek da ngay guddal jël la rek mais li wër wër mooy euh, Siteu bëri naat Papa yàlla may na ko ndam mooy nañ ko féliciter ñaanal ko yàlla ndam li jik ko ba pare féliciter Papa parce que comme mérité ay félicitations la. ci yaram ci respect ci nangoo joxe boppam nangoo liggéey ba pare surtout nangoo entraînement tey Papa ñun tey membre jàmbaar yëpp kenn amul lu mu koy reprocher ci côté entraînement ci côté préparation ci côté nangoo liggéey kon dañ koy féliciter il du mérite ba pare il a du mérite d'autant plus que taxawal lu mel ni jàmbaar Wrestling Academy moo mujjee juddu mais ñëpp a ngi koy bàyyi xel parce que ki mu doon la kenn xameewu ko ci caaxaan jaamu yàlla la xam toog jàpp ñàmburam nangoo liggéey te maa ngi woo mbër yu bëri ñu roy ci Papa Sow parce que royuwaay la c'est un grand monsieur vraiment man sama xol dafa fees parce que mënu nekk sax instant yi di expliquer mais mënu ma bañ a wax foog ñu wax li wërta wóor mooy mbëri nañu roy ci Papa Sow ci doxalinam ci ni muy nekkee ci biir écurie ni muy nekkee ay magam ni mu nekk ak ay naataawam ay rakkam dafa rafet kon ñun dañ ciy kontaan tey xëy na defet bi metti na trop si ñun mais bu ñu xoolee papa rek dañuy bëgg parce que dañuy xam ne vraiment c'est un grand monsieur te loolu rek moo ci am solo. alors coach wax nga ci ñaar sur le plan physique ni ñaari mbër yëpp indi nañ état bu am te yu mucc ayib la mais ñu gis tamit adversaire bi est-ce que wu leen d'une parce que avant combat bi polémique yi bari woon ñaan sida dafa tuuti ci combat bi est ce que paré na yool bari woon wax yi bari woon. non ñun duñu attardé wu ci lolu parce que ñaari mbeur buñu ñu avance ku nekk dem préparé wu li amateur yi ak supporters yi di wax ça importe peu ñun suñu sujet lañuy nekk suñu mbeur ndax il a euh, amna préparation bu baax suñu mbeur psychologiquement est ce que paré na suñu mbeur est ce que voilà est ce que est ce que ñun ci yoyu lañuy focus mais duñu focus souvent ci li xew autour wala ci li ñi di wax adversaire bi ñepp def nañ ben constant muy combat bi da ci wañi poids aussi lolou sétlu nañ cité musul wañi poids cité sawaay ba ñu xamee Siteu ba légui musul indi poids ci lamb bay wañi poids il faut ñu arrêter tamit parce que yenn euh, explica euh, explication yi wala yenn rumeur yi ñun duñ ci top ñun dañuy wara nek rek ci lu ñu war a muy li nga xamné tay mo moom ñu ñor cité ku ko xam ba nga ñew ba nga ñew ci lamb presque 50 kg la muy dem bay peser 70 kilos dem bay peser 80 kilos bu peser 100 kilos day mag, c'est normal day évoluer day progresser c'est normal mais ay dafa wàññi poids Siteu ban poids la mos indi ci lamb bañ ne Siteu dafa am poids il faut ñu arrêter quand même. combat passé comme ban. waaw déggoo ma Siteu combat bi yàqu bi sax forme bi mu yoron bobu pour man ça mo gëna bax bi mo indi dem pour man bala Diouf premier combat Siteu forme bi Siteu nekkoon c'est juste que Nous donnons le jour mu jouram aussi cité lu mu defoon day daan parce que jouram la won il faut l'accepter et puis ñu baye polémique bi. démb bi combat bi jexé ci ñu information de taille ñu bari diko reprendre suma confrère ñun Papa dafa annoncé ni day baye fin de sa carrière loolu leen leer nga ci dit. Wa déjà lu ñu depuis deux mois. xamoon nañ ni papa bu daanee day bàyyi bu daanoo day bàyyi liñ ci bëggoon ñun mooy mu terminer am boote mooy mu mu terminer at victoire looloo taxoon ñu ciy sonn looloo taxoon ñuy ŋar-ŋar looloo taxoon tey yéene ko victoire at carrière bu bu énorme bi mu def mu tëj at victoire loolu moo doon suñu yéene man objectif laa ko defoon objectif laa ko defoon moo tax ba lii mu surprendre ma mais en plus ñu nangu ko parce que xam tamit ndogolu yalla la kèn mënu ci dara ndey tay bu ngeen andone yeen ñep bolo ne li lañu bëgg li lañuy def bu yalla ne du am du am il faut l'accepter il faut être sportif il faut être fair play tay limay wax rek bu combat amé non nañu xassanté nañu yakanté lu melni xémé nañu xeex nañu raak mais bu jéxé jéxna sportif fair play mo fi dess il faut être fair play loolu la rek. Papa mooy njit bi comme ni ma ko waxee li nga am te ne moom moo soxal jàmbaar suñu académie mais mu am ay xale yoo xam te am ngeen ci ñoom yaakaar ñu nekk relève bi xale yooyu yan kàddu nga leen di dénk fi mu toll nii. waaw mooy ñu rey ci Papa rek xool ci carrière bi mu def fexe koo def fexe koo dépassé ñu xool ci Papa Sow ci nangoo liggéey xool ci Papa Sow ci am yar xool ci Papa Sow ci am diine loolu yëpp ay roy waay nit ki boo amee exemple koy roy non da ngay ci moom. kon nañu roy ci Papa saw ci discipline ci nango liggey ci jaamu yalla Cheikh Tidiane wàcc la ilallah xayartu. mbokk yi kenn du di tal lampe bu ñuul. lumière bi feeñ na serigne Cheikh As Barxaama borom li jaba nek ku yàlla baxal ci walum xam xam-xam ken kenn naataableetul ni mom moy serigne Real de Madrid waye tamit di ñaanaleel ki nga xamantene moy équipe nationale bu Sénégal coono jeex na jaaxle jeexati na yéen ñi doon wër lu bax te gisoo leen ko dal leen a jàmm ci serigne Cheikh As Barxaama borom li jaba yow mi chat sonal ba lo dugg do ci am ndam wala sax say mbir daal di dëgër loolu gaawal gaaw dem seti serigne Cheikh As Barxaama borom li jaba yow mi di wut keuyit wala sax ngay tukki mu daal di dëgër loolu yow mi rap sonal ba amago borom kër jëkkër wala sax amagoo soxna gaawal gaaw dem seeti Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li ba yow mi bëgg a seetlu baa sax li si xaar foo mënti nekk si àdduna bi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama mu daal di leeral say mbir te lépp da koo teg si alxuraanul karim Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba dafa taxaw temm ngir dimbali jaam ñi gaawal gaaw contacter Serigne Cheikh Ass Barxaama borom li jaaba si 77 219 52 58 wala si 77 882 24 77 wala it 982 55 40 ak Serigne Cheikh As Barxaama borom li jaaba dimbali jaam ñi mooy suma aaj.